sëñ Malick maamam la tudde daara ji te loolu dal na xel te yaakaaru na yàlla fi barkeb sëriñ Mouhamad dem tab bi ba képp ku fi jaar barke bi tab ci yow foo jëm yóbbaale ko loolu tax ma man koo firndeel mooy man kama duñu jàngal alxuraan damaa ni ma sëñ mu dem man sëñ Abdourahim dem daana liggéey ba mu gërëm ma su ma la gërëmee foo jëm da nga yebbaale barkeb daaree njareen ja loolu dañu ñu seedeeloon man a suñu aadama moom yi te loolu yaakaar naa ñu ngi kon bu ko defee noonu dal la xel yéen ñi fa indi seen doom daal ngeen gën a dëgëral seen confiance seen xel gën a dal xam ni fii fu ñuy defaroo la fu ñuy yaroo la fu ñuy xamee la fu ñuy amee la def na fi amee yàlla amee fi yonante bi amee fi àddina ndax neseru suñu maal yi bu noppee ci dongo yi àgg na ci yéeneem defal leen centre yoo xam ni ay formation lañu fay jëlee moo xam ci agriculture lay doon moo xam ci élevage lay doon moo xam ci ay métiers yoo xam si ni gone yu góor yi jigéen ñi dañ ko mën a yóbbuloo bu dee lu mel ni xeeti ñaw yi wala informatique yooyu yëpp ay programme la yoo xam ne daara jën nas na ko ngir donga bi bu fi génnee nekk cadre nekk cadre boo xam si ni dana mën a jariñoo boppam mën a jariñ keneen waaye bëgg ñu mu génn rek nekk ko xam day niil kon ñu ñëw dugg ci thème bi mu baasaratan jox suñu conférencier oustaz Mor Thiam nga xam ne moom mi ngi jàngee ci kër Serigne Mouhamadou Deme fa la jànge ba am njàngam sotti mu jóge fa dem ci école Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma 1999 ba léegi mu ngi toog foofu di fi jàngale diine ba tey it moo yor wàllub diine bi ci rajo RTS bu Diourbel maanaam disque islamique bi suñ Mor Fay Càmm mi moo nekk njiit la di ko doxal kenn ku nekk xam-xam-xamam ak taxawaayam ak bëgg gum bëgg xam-xam ak àq jum ko jox ak sonn gum ci nangoo sonn kon loolu ñoom lay ñaanal suñu borom ubbi la leeral sa làmmañ sa jotal sa kaddu ba li nga bëgg a joxe lépp nga joxe ko tañ tàngee ca njariñ loo xam ni des na ko mën yóbbuloo ba déwén si heure bi bu ngi dukkee man koo teewalaat jëlaat beneen bind bu bees bu bokkut ak bi ñu amoon daaw kon Serigne Mor Faye Thiam tafaddal maskura di tàmbali nuyoo bi ci ziyaara bu baax ak ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla gën a guddal ay fanam te wéral ko ba mu yeggale naal yëpp ak yéene yëpp tanu fekk di nuyu ak ziyaare itam sëriñ cheikh jëmb Fall mi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñu ngi koy ñaanal bu baax moom tam ak gudd fan gu ànd ak wér ba mu yeggalee naal yi ak yéene yi di nuyu ak ziyaara <clears throat> boroom kër gi su ma nee boroom kër gi nag mooy xalifa sëriñ Mouhamadou Dem nga xam ni moom moom kër gi moomaa lenu ñu ngi koy ziyaare bu baax di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko muy sëriñ Cheikh Ahmadou Dem moom sëriñ Mouhamadou Dem moom soxna maam Faati Mbàkke moom sëriñ Xaafiya al Sayyidil Muxtaar <clears throat> di fàttaliku nag ak di ñaanal bu baax magam ju baax ji mu wuutu fan yii rek di sëriñ Moustapha moom sëñ Mouhamad Dem toogoon jotaayu sëñ Mouhamadou Dem te jotaay ba rafet lool ba yàlla ñëwa ko dogalam yàlla yàlla doolu yërmandeem ak njëgalam yàlla mën na ko yomb na ko yàlla na ko def waaye di itam seen mag ju baax ja nga xam ni ku toogoon rek danga doon jéem a yeggale ab liggéeyam muy sëñ Abdourahim Dem rahmatullahi alayhi wa radiya ñu ngi ñaanal njabootu suñ ma dem gi yëpp di ñaan suñ boroom ñi jiitu ji yàlla yërëm leen te jéggal leen ñi fi desandi itam yàlla yàggal leen ti te wéral leen di nuyu nag sunu mag sunu sëriñ maa ngi dajeek moom léegi di sëriñ Malick Dem man ma nekk ci taxi ndekete séen na ma di ma téléphoné di ma wax xanaa ca barab ba nga jëm ma ne ko ah, mu ni ma jaar naa fa léegi waaye nag yàgguma fa ngir jëmmal leen am nay dénkaane yu ma jox yooyu nee na ma jàllale ko dinaa ko jàllale ci kanam incha allah moom tam mooy jëwriñu kër gi maa ngi koy siyaare bu baax a baax di siyaare sëriñ si ma fi fekk ñii ne ci sama loxo ndeyjoor ñëpp doomi daara lañ ñëpp ay sëriñ lañ ñëpp ay doomi daara la ñëpp ay sëriñ lañ te nii may wax ni ma ko xame nu ko raw la ko mane ni leen ko xame it nag ndax lu ma ci xam seen daaray maam ak seen daaray bàyyi laa ko jànge kon sant naa bu baax bi ñu ma tànnee di ma def loo loo xam ni ñoom ñi ma koy def loo ñoo ma ko gën a man kon damay jàpp ni dañ may ishraaf ishraaf mooy dañ may superviser may mel ne di nab nabi ca lañu ma jàngaloon ñoom ndax baax naam am su baaxee ñoom la su bonee nag man la kon maa ngi sant bu baax a baax a baax maa ngi lay sant bu baax sama mbokkum taalibe bi di la gërëm bu baax a baax gis naa fi ay jëmm yu ma gëj a gis yu ma gëj a gis waaye li ma leen di gëj a gis gëj a gis ñu ngi ci jàng ak jàngale ndax loolu lañ xam maa ngi nuyu sang si di soxna yi di nuyu itam sama rakk yi di sama mbokki taalibe yi bis di ziyaare bopp yëpp ak sama mbokki caméraman yi euh, waxtaan wi bi ma ko sëñ du waxee dama cee sonn ndax barab bi sonn ci lool laa def lool lool sax musuma sonn ci jotaay buñ ma def loo du tele du rajo du conférence bu ma sonnee ni jotaayu tey bi ndax bëgg mu riche ndax ñaar fi ma koy defee dama bëgg lu ñu fiy defee mu riche ndax fii laa am beneen bi ci des sam mooy yaakaar ji ndax mënoon nañoo am keneen ko ko def ku ko man moo tax ma sonn ci ngir ñaari anam mooy bëgg naa luy génn fii riche lool ndax day dem ci tele rajo yi ku xam Rafaahi TV ku xam GFM ak yeneen organ de presse yi nga xam ne day jàll au niveau international luy jóge ci daara ji war naa riche lool d'une manière général loolu moo tax sonn naa ci bi jaay ni bin ma sonn naa ci tam ndax fii sama sama kër la lu ma fi def daa war a baax ma ñu joxoon ma temu waajibatul muslim naxwal kataatiib loolu ci wolof mooy rôlu daara yi rôlu jullit ñi ci daara yi waxut ci daara daf ko def pluriel waxut rôlu jullit ñi ci daara ji mais dane ci daara yi kon daara fu mu nekk ci àddina rek jullit ñi seen taxawaay ca daara jooja loolu moo doonoon thème central bi dawrul muslim naxwal kataatiib wala naxwal kutaab ma defoon ko fukki tomb yoo xam ni tomb bu ne bëgg naa caa jaar lu mu néew néew cinq minutes ba ci yàgg ma ñëw sëñ Modou ne ma daa bëgg waxtaan wi lu mu bari bari mu mat quarante cinq minutes ma ne ko loolu sax mooy norme yi ndax man nitu rajo laa xam naa conférence su ëppee quarante cinq minutes nit ñi dañuy nelaw lu waxtaan wi neex neex dañuy nelaw surtout ñu nekk ci weeru koor te nit lu mënta wax ci quarante cinq minutes du ko mën a wax ci une heure de temps quarante cinq minutes lu bari la kon man bi ma ko waxee rek daf ma canaliser daf ma dimbali waaye li muy bari bari moom tomb yi dinaa ko tënk ci quarante cinq minutes te lu ma ko tënk-tënk itam dana leer bu soobee yàlla incha allah tomb dinaa saraa baatu devoir mooy lan sarxu kalimatul waajibaat dinaa leeral lan mooy devoir ñaareel bi dinaa leeral lan mooy daara moo daara dinaa ko dinaa ko définir incha allah ñetteel bi dinaa leeral daara ji njëkk a am ci bi yàlla taxawalee asamaan ak suuf jan daara moo njëkk am ak ban taalibe moo njëkk a am ak ku ca tegu ku ba tey ba ci daara ji tey dinaa leeral duggug lislaam ci senegaal ci ban siècle la woon ci bi muy dugg la yóbba la ëndaale daara duggug lislaam ci Sénégal te bi muy dugg si la ëndaale daara bi lislaam duggagut Sénégal daara amagul woon dinaa ci ñëw mooy cinquième point bi sixième point bi mooy daaray démb ak daaray tey wuute gi ci am daaray démb ak daaray tey wuute gi ci am dinaa ñëw ci gisinu état bi ci daara gisuñu état bi ci jàngale diine rawatina daara nazariyatul xukuma ala taalimi diini islami amma walil kutaabi xassa nan la di eh, état gisee njàngalem diine ci senegal rawatina daara juróom-ñetteelu point bi mooy problème mu jàngalekat bi jàngale daara ak méthodologie bi muy jàngale ñoom tam am nañ tuuti jafe-jafe muskilatu muallimil quraan wa manhajiyatu taalim problème jàngalekatu alquraan bi muy sëriñu daara bi problème bi mu am ak méthode bi muy jàngale loolu tam dinaa ci ñëw juróom-ñeenteel bi mooy ndekete kuy jàngale alquraan dañ laa war a fay wujubu axsi al ujra bi taalimil quraan ndekete kuy jàngale alquraan da ngaa war a fayeeku ci bu la neexee ba ko fukkeel mooy taxawaayu sëriñ si sëriñ si ku ngeen xalaat rek kuñ ñu sëriñ la surtout ñu naan kilifa ak diine gi ci giseen ci ci ci daara yi taxawaayu sëriñ si ci daara yi loolu mooy thème yi nga xam ni bëggoon naa ko leeral bu fi xaje thème yi nga xam ni bëggoon naa koo leeral bu fi xaje bu mujj bi mooy taxawaayu sëriñ si sëriñ sépp nag su ngeen xalaat rek mi ngi ci biir seen taxawaay seen position seen rôle ci daara yi ndax ñoom dangay ngay dégg ñu naan leen kilifa diine yi kon kenn du génne daara ci diine kon seen rôle ñoom loolu mooy point dinaa ko jëm a tënk nag ci 45 minutes yéen ñiy déglu nag du ñàkk léeg-léeg ma génn ci point dugg ci point yi te du ngeen ko yëg ndax ginnaaw ba dañoo bëgg ma def ko ci 45 minutes kon danaa ko ijimal muy li ngeen di wax mëmbëstal dinaa ko ko def du ñàkk ma génn ci point dugg mais gannaaw ay jàngkat a fi nekk bu ma génnee danañ ko xam bu ma duggee danañ ko xam dégg sëñ bu njëkk bi mooy lan mooy devoir lan mooy warugar warugar mooy li ne ci sa doq nga xam ni day yéeg ak a wàcc saa boo ko wàccee ci kanam mu yéegaat saa boo ko wàccee ci kanam mu yéegaat ma joxe ci misaal comme julli julli suba tisbaar tàkkusaan timis gee doo julli suba rek julli wàcc la julli suba moo lay wàccandi ba gee jot julli waraat la ba tisbaar jot julli waraat la nga julli mu wàccandi la ba tàkkusaan jot mu waraat la nga julli mu wàccandi la ba timis jot mu waraat la nga julli mu wàccandi la ba jot mu wa mu waraat la kon li fi jullee goo julli gi wàccagu la ndax kon julli dafa doon waajib su ñuy liir ahkaamu shar'iyya waajib ba nga ci waajib mooy warugar am ñu koy wax farida muy li nga xam ni def ko force la duñ la ci neexal duñ la ci bang-bangee duñ la ci woo ci pet naan la nangam ak nangam da ko war a def ndax mu wàcc la su la wàccee tam dalay wàccandi rek ba ci kanam mu yéegaat la kon loolu mooy devoir mooy warugar kon jullit ñépp seen warugar mooy loo xam ni mi ngi ci seenu loos suñu ko defee war na leen bu ñu ko defut war na leen suñ ko defee itam dañ dañ dañ leen di wàccandi rek ab instant bu ndaw sa xasiira wala muddatan sa xasiira benn diir bu ndaw wàcc leen ba ci yàgg mu yéegaat leen loolu dinaa ko leeral lu tax mu leen di yëg ko wàcc mooy kenn du jël saakub ceeb jox ko benn daara rek pare ci daara ne lii de sama dund rek saakub ceeb jox naa ko daara kon man daara wàccoon na ma ak moom loolu ab jullit du ko def kon jox leen tey war na la jox leen suba war na la jox leen ginnaaw suba war na la jox leen madal xayaa yaa ngi dund war nga leen di jox kon ni la julli di waree chaque jour ngay julli juróom ak yeneen nawaafil yoo mën a def noonu la la jox ci daara ware yow mi yan muy chaque jour 24 sur 24 7 sur 7 bis bu set jullit bi war nay def ci daara kon loolu mooy devoir léegi lan mooy jullit toujours dañuy jaawale kuy julli akub jullit gis nañ ñi alxuraan détaillé na ñett ñi ku gëm ku weddi naafeq ñett ñi rek ñoo am ki gëm moom xamees na ko ki weddi xamees na ko mais problème bi ñu jaaxal mooy almunaafiq yàlla waxoon na yonent bi ne ko del tey am na gaay yu toog ci yow te duñ ay jullit ay naafeq lañ te maa ngi lay waatal man yàlla ne ñooñu ay naafeq lañ jërëjëf kon problème bi du problème mu kii doon jullit leer na du problème mu kii doon yéefar leer na problème bi mooy problème mu ki nga xamante ni dafa doon ab munaafiq te mooy am naafiq kon ñun Sénégal da ngay dégg ñu naan Sénégal kat quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ léeg-léeg sax nga dégg quatre-vingt-dix-huit pour ay jullit lañ man su doon man la dama naan dañoo war a wax quatre quinze pour cent ñuy julli lañ mais jullit bi ñu ko yonent bi day wax dafa jël loxoom teg ci dënnam yu siiru ila sadrihi salaasa at taqwa haahuna la waxoon jullit ci xol lay nag jullit piir ci xol lay nekk mais au lieu di julli rek loolu moom fas yu aw fas boo ko jàngalee julli mën naa julli ak golo boo ko jàngalee julli mën naa julli ci diggante rukoox ak sujjóot yaag yu mu ci mën a doon kon nañu xam bu baax a baax a baax ci ni jullit piir mooy bii ma wax mooy bii nga xamante ni day def ci daara chaque jour su mënatul wax ak njaboot ñuy def ñuy def ci daara su mënatul fu mu mën a jële donte benn bekk suukar la mu jële ko def ci daara ba keroog muy faatu moo xam moom kooka doomi daara la woon moo xam du doomi daara kon kooku mooy ab jullit piir kooka tam moom loole muy def mooy devoir dëgg mooy devoir mooy warugar te da ko wóor ni ba keroog muy faatu warugar wi na ci doxam du ko wàcc beneen bi ci des sam mooy kenn ku ne ci ñun képp ku doon ab jullit piir samp daara war na la samp daara warugar la ci yow mais ñun ñëpp mënuñoo sampi daara kon day am ñu ko sampi am ñu leen di jàppale ci ñu dox lanu yàlla waxoon ci alxuraan yéen ñëpp ngeen dem jàngi waru gar la mais na am ñu dem jàngi bu nu ñëwee jàngal ñi jàngiwul ko defee société bi dox ndax menuisier yi mënuñoo ñàkk tailleur yi mënuñoo ñàkk maçon yi mënuñoo ñàkk su ñëpp demee jàngi diine danañ dem ba bëgg ku ñu construire école wala poste de santé duñ am kon il faut ñu bàyyi ñenn ñu dem jàngi leen ñenn ñu jàngi li suñ ñëwee nag at takaamul ijtimaai am te mooy jàppante ñëpp jàppante kii indi lii ki indi lii ñu mën a dem kon nañu xam ni euh, loolu muy devoir mooy warugar foofa nag xam nga léeg-léeg nga dégg ku naan nit ki bala muy laaj droit am day def devoir am daara amul droit juy jóge ci yow di ñëw ci yaw déedéet barab la bu yàlla samp jour devoir la ci yow nga di ko suuxat bul te séentu luy jóge ca daara ja la ngay séentu du jóge ca daara ja ci yàlla lay jóge ñun ñëpp gëm nañ ni balaa kenn laaj droit am dafay def devoiram ab jullit nag devoiram ci biir diine ci biir daara bu mu fa laaj lenn luy jóge ci moom di ay xoxoox dafa war a def rek moom am na keneen ku ko war a fay muy suñ borom mais bu mu fa defe ni bu fa jëmbatee dara daa war a meññ sax mu jariñoo ko déedéet na jëmbat rek xam ni njëmbatum yàlla la dafa war a toll fu mu dafa war a doon doon koo xam ne fu mu egg fu mu toll day arrosé njëmbat la te xam ne yàlla ma ko dencal ak pay ëllëg mais bu mu defe dafa war a ji tey mu sax tey mu jariñoo tey loolu def ko feneen mais lu jëm ci daara jàppal ni toolub yàlla ngay liggéey te toolub yàlla bul ca jéem di liggéey di ca sàkku loo ca lekk xamal ni borom tool bi moo la yoral sag pay te bu la fayee nga xam ni fay na kon li li ñu gëm ñun ñëpp mooy balaa kenn laaj droit am dafay def devoir loolu ab ab euh, genre expression buñ gëm la ñun ñëpp nit bala muy laaj ay moomeelam day def ay waru loolu luñ gëm la tey xellu na ci yenn yi mais bu dee lu jëm ci daara déedéet daara da nga fay def rek def fa rek loo man rek def fa bul wàcc bul tàyyi bul découragé bul bàyyi def fa te bu fa séenu lu fay jóge di ñëw ci yow lu dul ñaan gi waa daara jay defal ak yàlla mi nga xamante ni gis na la te moo sant tam ñuy jàppale ñooñ daara kon loolu mooy droit kooku moo di jullit léegi xam nañ kon devoir mooy lu nu war te du nu wàcc ba keroog ñuy wàccub liggéey moo tax ku faatu sax dañ naan diw de wàcc na liggéey wàccub liggéey mooy sa wari gar yi la waroon yépp ci àdduna ci lu baax bis ki tey jeex na mais li yaa ngi noyyi soo amatul def ca daara it am na yeneen warugar yu la war mooy julli ba tey mi ngi ci sa dox ak noo mën a jullee ba keroog ngay faatu li yaa ngi am na ñaar dërëm yooyu am parweer weer wala say doom di ko am dee ca coppati di def sa di def ca daara di ca coppati di def sa daara bul tàyyeel su daara ji tëjee jeneen daaraa ngi fi ju tëjee jeneen nga fa daara ju tëj rek moo tax bi may tàmbali ma ni suñu tem mooy rôlu jullit ñi ci daara yi te xam ne daara yi ka ko samp muumu ko da koo samp rek mais yàllaa ko moom ci alal yàlla yi la bokk te mu bokk ci yi nga xam ne deesu ko miraas ndax noonu milkun lil ahad waaye milkun lil jamia la ñépp a ko moom mook mook jumaa ak jàkka ñooyam bu fa borom daara ja jógee dem feneen it daara ja terewut day dox kon lu ñëpp moom ñëpp ci war a def seen seen alal ak seen doole ak seen xam-xam beneen bi ci des mooy présentation daara daara mooy lan daara ñun ñëpp dañ naan daara li ma bëgg a leerlu mooy da gis ku xëy suba yor ay jumtukaayam ne maa ngi dem place ba place boobee danaan maa ngi dem ca daara ja kii dem di jaay place bi muy dem danaan maa ngi dem daara ja kii jaay restaurant danaan maa ngi dem daara ja menuisier bi danaan maa ngi dem daara ja Euh, ministre métallique bi danaan maa ngi dem daara ja sëñ Malick dem bu dee dem di jàngale ci daara danaan ne maa ngi dem daara ja te ñoom ñëpp kenn bokku ci sama morom li ñëpp bu ñuy dem dañ maa ngi dem daara kay toggi sax nga xamante ne ab restauratrice la di togg danaan maa ngi dem ci daara ja ki nga xamante ne day dem doon ab préparateur télé danaan maa ngi dem ci daara ja sëñ Malick bu dee dem ca daara ja danaan maa ngi dem ca daara ja ca ñetti daara yooyu boo demee bokkuñu li ñuy def kii ceeb lay jaay te pourtant daara la tudde kërëb barab moom kii ay télé téléphone lay defar te pourtant daara la tudde barabam kii nag alxuraan lay jàngale te pourtant daa daara la tudde barabam ñetti ñi am na kenn ku ci wax dëgg ñi ci des waxuñu dem kon ñi ci des nañ wuti beneen tur mais buñ ko tuddee daara te kiy wuti beneen tur ka ca jiitu mooy kiy jaay ceeb na wax na may dem na maa ngi dem ca restaurant ba kiy kiy defari portable na wax maa ngi dem ca place ba kiy jàngale ci alxuraan nag mu ni maa ngi dem ca daara même bu mu wax maa ngi dem ci école ba ndax léeg-léeg ma gis sax ay mooyuñ naan madrasatul quraaniya lool tam ay njuumte mi ngi ci madrasa moom du firi mukk daara école lay firi du firi mukk ba àdduna tukki du firi daara jàngalekat yaa ngi nii ñoom sëñ Modou bokk yi bokk yëpp daal ay jàngalekat lay baatu madrasa en arabe ba ba ke ba Makka du firi mukk daara li muy firi daal mooy école boo nee arabia nag mu firi école arabe boo nee français mu firi école français boo nee arabiyatul français mu doon franco arabe daara nag jenn la daara nag la bëgg ñu jàngat ko lu ko indi ak lu tax ñu naan daara baatub daara baatub arab la tey maag sëñ bi buñ doon waxtaan ci suñ diggante da nga naan daara xadiisun bayni wa baynahu daara xadiisun bayni wa baynahu maag sëñ Malick Dem tey bu ñu doon jox ko téléphone dañ naan daara hadiisun bay na Mor Thiam wa Cheikh Malick Dem baatu daara boobu boobu bi bokkuñu li ñu firi ñun dañoo abbi booba kon ñun nañu wut tam ñun suñ baatu bopp daara moom en arabe li firi mooy wër na daara ya duuru dawran wala daara ya duuru dawratan mooy firi lu lu am ci diggante maag kii maag kii tey bu ñu doon waxtaan di ngunum ngunumi yow nga xool ñu da nga naan ñii kat ña ngay ngunum ngunumi ci seen biir ngunum ngunum joojee wala wax joojee moo firi mooy firi daara mooy saaru dialogue waaw kay mu boobu laa soxla mooy ñuy waxtaan mu di ma wax ma di ko wax dara daa di am suñ diggante ñu ne daara xadiisun bayna Mor Thiam wa hada waxtaan am na ci diggante diw ak diw kon daara boobu ni koy binde mooy daal ñenn ñi di wax deel ak alif ak raa loolu lañ koy firé foo dem loolu lañ koy firé même daara boo ko dee bindi noonu nga koy binde boo demee fee tam daara gi noonu lañ koy binde problème bi nag mooy dañ ko amul ñun ñoo ko amul daara ji moo ko amul dem wuti ko ba mu koy wuti it mu dem abbi ko lool garaawut ndax fi mu ko abbe sañ na ko faa àbb ndax ci làkku arab la ko abbe su ko abbi woon feneen am def erreur mais da koo amul moom dem abbi ko ci làkku yaaram inna anzalnaahu quraanan arabiyan wàcce naa alquran mu doon arab kon léegi ñun bu ñu amul dara am nañ sañ-sañu dem ca suñ ndey àbbi fa baat andi mais bàyyi leen xel ni daara ji nit ki nekk di jàngale alquran mënuñu ko tudde daara baat bee en arabe di tudd daara ñaar yëpp di ñaari daara yu bokkut lu ñuy tekki te bokk nuñ leen di binde ay eh, tam eh, sew sew la yu ma ta bàyyi xel kon nañu xam ni bu soxna see kaamu yónni la ca daara ja soxna si bu nee diw kaamu yónni la ca daara ja nañ jàpp ni daara ji mu bëgg a wax lu interprétation yi bari bari bari mooy daara ji njàngale alxuraan waaw loolu moom nañ ko xam waaye bu ne kaamu yónni la ca daara ja fekk ni école ba la bëgg wax na wax kaamu yónni la ca école ba ndax école ay classe moo fa nekk direction moo fa nekk naka noonu tam ci ta table banc yi la ñuy teg la ñuy la toog ñoom duñ toog ci ci ci suuf donte nag daara mën naa dem ba am tableau ndax tableau moom looy bindee la rek pour ñëpp gisandoo mais école kenn ku nekk xam nga ni bokkut ak daara kaay ñëw ca dem ca école ba ak kaay ñëw dem ca daara ja bokkuñu sax baatu école ak baatu daara ni ñu koy bindee bokkuñu itam ni ñu koy wax kon fii moo moo tudd daara waaye nanu xam ni dañoo amul baat bi ndax buñ ne école alxuraan delluwaat nañ fee buñ ne këru alxuraan doo xam lu muy tekki kon daara dong la mën a doon mais amuñu moo bi nag moo bi dañ koo amut na ngeen xam ne amuñu ko moo tax ñu dem jëggaane ko fee daal di indi te mag ñi ci boppam ñoo amoon problème boobu ba tax ñoom it ñu daal di sampare rek tudde ko daara ñu li taxoon ñu def ko tam mooy seen kër yi ñu amoon nag seen soxna yi daara lañ ko tudde woon mag ñi seen kër yi ñu nekkoon ak seen soxna yi dañ ko daan ñaare ñoom ñu ne ci beneen côté bi ñi ci des na ñu tudde ko daara ndax ñoom toujours rek diine lañ fa daan doxal ak lu baax ak yu liiw tax ñu tudde ko daara loolu nag ñu dem ba ci yàgg ñu daal di amaat yeneen i barab foofu ñu fay jàng alxuraan ñu tudde ko daara mais nañu xam ne baat baatu daara mu ngi jóge ci mag ñi mag ñi ñoo ñu indil ñoo ñu indil daara ngir jublu ci seen kër jublu ci seen kër bas ba yow man ngay jóg ne maa ngi dem ca daara ja fekk sa kër nga ci jublu la sa nekk nga ci jublu nit ki mën naa jóge ci garam place bi ñu ne ko foo jëm mu ni waaye man kan maa ngi dem daara ja fekk daara jooju jum ci jublu këram la ci jublu loolu mën naa ne ndax fu ñuy dal loola fooy jànge la xëy na fooy jàngalee la xëy na mën naa nekk mag ñi tam baat boobu lañ abbi woon ñëw soo demee ci balaaxa am na lu ñuy wax istiaara ak ci bare bare day ay kii kon yooyu mën na ne léegi nag kon nit ki munta tudde place bi muy jaayee daara tudde place bi muy jàngale alxuraan daara fenn rek moo ci daara mooy fi ñuy jàngale alxuraan feneen fu doon daara rek borom day wax rek xëy na day moderniser ay làngam ak di wane ni fii daara laa ko jàppe mais fépp fu ñu jàngalewul alxuraan dañ ko tudde neneen mais munta doon daara alxuraan fi ñu koy jàngale rek moo mën a tudd daara te na sax am na nu daara jey demee tudd tuddatu daara internat lay tudd ndax dañ fay interne ay nit loolu nag donte baatu tubaab la bu ñu jëggaan itam mën naa nekk waaye nanu xam ne daal bépp barab bu ñuy jàngale alxuraan daara la tudd kon léegi loolu leer na kër gi nga nekk itam bu la neexee nga tudde ko daara bu la neexee waaye bu kenn jël école bu ñuy jàngale français wala ñu fay jàngale arab ñu tudde ko daara ku jël tam barab bu ñuy jàngale alxuraan tudde ko madarasa xuraaniya itam erreur la gis naa ci ay mbind rabitatul madaris xuraaniya ñoom xam nañ expression boobu ñu jël waaye li gënoon moo ñu seet ne na nuñ ko tudde rabitatul alkutaab al quraan yi mën naa nekk wala rabitatul kutaab yi mën naa nekk wala rabitatul kataatib loolu lépp man naa nekk waaye dañoo bëgg lu gën a gaaw rek gannaaw ba ab institution la dafa war a am kayit ñu bëgg ko moderniser tuddee ko rabitatul madaris al quraan yi na nañu xam ne baatu madarasa ba àdduna tukki du firi du mënta firi daara li muy firi moom mooy école boo demoon tey ci maajimu luga muy dictionnaire yu ngand yi soo tappee baatu madarasa du la ko fireel daara école la koy fireel ba ci boo duggoon ci ci google boo ko tappee loolu la la kon tam doon loon wala dafa am looy leeral ah, kon loolu nañ ko xam beneen bi ci des mooy léegi nag duggug duggug lislaam ci Sénégal duggug lislaam ci Sénégal mooy duggug daara ci Sénégal ndax bi lislaam duggagut daara mënut dugg ndax ñun duñ xamagun booba daara ndax daara moog lislaam a ànd ñëw day mel ni ab naar bu ànd ak gëleemam ñëw saa boo nee at sàngam la naar bi dugg ci Sénégal rek jàppal na ci la gële gëleem gi dugg ci Sénégal daara bi muy dugg senegaal arab lislaam lépp ñoo àndandoo donte nag dañuy séparer ñaar yi dañuy séparer lislaam ak arab bokkuñu on a que kalimataani muxtalifataani arab langue la rek l'islaam nag diine la am na benn waay bu tuddoon Mouhamadul Hamid Kisk mi ngi dëkkoon Égypte daa ganewaale àddina woon silmaxa ku jàmbaare woon la nelaw na bi muy nelaw benn ajuma la jóge ci étage am wàcc dem ci jàkk ji ci buntu biir këram ak ajuma la muy naafile fa muy sujjoote fa la faatoo ku jàmbaare la daana wax ni islaam wala daana wax arab naaxis islaam yu saawi sifru bari na ci ay waxam daana wax araab naaxis islaam yu saawi sifru arab lu ci lislaam nekkul du dara bari na lool ci ay waxam ku ñeme woon la ci jamono Jamal Abdou Nasir bu Égypte ak Husnul Mubarak ku mënoon ku ñeme woon dëgg la sanre Sidi Lamine Niass rahmatullahi alayhi wa radiya waaw Mouhamadul Hamid Kiski la tuddoon gumbala woon daa judduwaale daa judduwaale loolu mais lim baree téere yum liggéey maar day taali ba ci miraas bind na ci moom moo daan wax arab naaxis islaam yu yusaawi sifru arab bu ca lislaam génnee du dara moo tax ma leeral léegi ne leen nañu bàyyi xel duggug islaam ci biir réew mi waxuma duggug arab duxulul islaam fi senegal laa wax waxuma duxulul arab fi Sénégal l'islam bi muy dugg Sénégal onzième siècle la am na ay historiens yu ñu dixième siècle mooy bi ñu amee fukki siècle ak benn ñii ni bu ñu amee fukki siècle fi mu jaare nag historiens yi bari nañ ci lool ay wax yu ñu ci wax mais li ci ëpp solo rek mooy bi ñu gën a jege ci murabituun yi mooy mooy Mauritanie Mauritanie lañ jaar ñëw ci ñoom la ñuy wooye almurabituun foofa lañ jóge ci wàllu commerce wàllum commercial muy naaxiyati tijaariya daa musa am diggante Sénégal ak Mauritanie naka jekk wàllum jaay ak wàllum jënd dafa baa mus a am moo tax loo mën a dégg naari fu ñu mën a jaayee ci àddina Sénégal moo lañ gën ndax day lu yàgg day cosaan beneen bi ci des sam beneen bi ci des sam mooy dañoo gis ni seen xaalis daa musa bon xaalis su Ogueye ci ñi dem Mauritanie xam nañu du dara téeméeri junni boo ko fa indi woon su ma lambee sama poos fekk ci cinquante mille dañuy weccoo sa seen xaalis lu mu bari bari du doon dara foofa la xam-xam jaare ñëw ci senegal foofu la islam jaare ñëw ci senegal ndax nag nañ bàyyi xel ni Mauritanie ci réew yi ëppoon xam-xam ci la bokkoon surtout ci sous-région min jaanib iqlimi sous-région bi ñi ëppoon xam-xam ci lañ bokkoon moo tax Sëñ Tuubaa bi mu jógee ci premier exil bi mooy almanful awwal ñu ko ëndee dañ ko ne léegi ginnaaw ba jaar nañ fee ak yow réussite nga kaa ñu yóbbu la alxaybatu thaniya kaa ñu dem ñu yóbbu la Mauritanie li tax Mauritanie mooy ay borom xam-xam nga fa seex euh, lu mel ni kii seex Sidiya Baba ma nga fa bari xam-xam lool te gis nañu nit ñu weex lañ xam-xam bi ngay jaay ak nitu yàlla gi ngay jaay boo fa demee da nga fa fekk ñu la gën a ëpp xam-xam dàq laa bind far ñooñe ba mu demee ñu ci bare bari jébbalu ca moom ba soo gisee seen diwaan bi ñëpp ay mauritanien la ñoo xam ne way nañ ci Cheikhul Khadim muy diwaanu sonraawul mauritanie yi muy zawaya mauritanie yi ña fa nekk ñoom ñëpp di ay borom xam-xam mujj na ñoom ñëpp jokk ci moom di ko bind ba ci Abdourahman At-Tandaxi mi nga xam ne moo mujjoon ci ñoom te nekkoon ak sëñ bi fii te bokkoon ci ñi ko doon euh, laabal bi fi sëriñ bi bàyyi ko maa ngi tuub laabal sax bokkoon ci ñi ko doon toppatoo moom moomu ci ci naar yooyu la bokkoon waaye amoon ndimbal jege woon sëñ bi bi san bi di dugg Sénégal bi mu duggee ba nga xamante ni ñëw nañ li ëpp ci fiñ jaare mooy côté waalo waalo buñ ko waxee mooy ndar ak yéen ndax foofu la gën a jege dagana naka ñu ñëw rek ñoom nee nañ daal di samp daara ndax naar yi naka jekk dañoo yàgg bëgg alxuraan te nopp ba noppitam yàgg cee jàmbaar fi mu ne ñi dàq jàngale warsh ak xafs ci àdduna bi Mauritanie ci la bokk ñi ko dàq jàngale ci lañ bokk moo tax démb saoudiens yi dañ daan ñëw Mauritanie di jël seen i borom xam-xam di yóbbu xam naa ci ñu tolloog fukki nit ak ñett ñoo xamante ni Maurit Arabie Saoudite lañ faatoo ñoo doon jàngale ci ci université yi ba ci yàgg ñu jëlee leen biir màkk indi leen ummul xuraa jaamixatul ummul xuraa mu université bi nekk Madinatul Munawwar ñu fay jàngale ilmul xuraat dafa jàngale mos nu mu tuddati euh, tajwid lépp lu jëm ci almawaad diiniya alquran ak lu ci aju lépp ñoo ko daan jàngal li ëppoon ci ñoom saoudien yi diggante màkk ak Madina seen professeurs yi daan jàngale alquran Mauritanie la daan jóge ba ci ki ngeen dégg fan yii ñu ne dafa feebar mu Youssouf yi te ngeen ko daan seetaan ci Al dafa feebar ba maar day taali jaar na Mauritanie gi am na chaîne am na benn émission bu mu daan def ci Al Jazeera ñu tuddee ko Asharihatu wal Haya ku jàmbaare la sëñ Malick Dem mii kooku jàngal na ko bi mu nekkee Qatar moo leen yoroon fiq sëñ Malick bi ñu doon waxtaan bi mais ma doon nuyu léegi su Youssouf Xardaawi moom yoroon na ko bi ñu nekkee Qatar seen première année ku jàmbaare la ci wàllu ci wàllu diine bind na téere bu tudd fiqhu zakat te téere boobu su ngeen ko gisee mbooleem réew yi seen xaalis def na ko ca fenn fu ci nekk lan lañ war a am ngir génn asaka tax li gën a jafe ci àddina mooy génn asakay xaalis ndax nit ñi bokkuñu alal nee nañ bi rab mu rabitunu yi ñëwee dañoo daal di samp daara dañ koo daal di samp fi nga xamante ni moom mooy waalo ñi ci des na continuer ak seenum jëgg mooy li ñuy wax xaafi la ci biir réew mi ñenn ña toog ña toogoon nag ñoo jëloon doomi waalo waalo ya muy ndar ndar di leen jàngal su ngeen gisee ñu ni ndaw ndar xale bu ndaw ba day mokkal alxuraan ba noppi jàngi tubaab loolu la woon mooy sens bi ñu amoon mooy naar yi dañ faa jiitu woon samp fa daara ba noppi dafa jàngale samp fa daara ba noppi dafa jàngale ñenn ñu nag dellusiwaat ci biir réew mi ñoom tasaaroo ñii dem ko tey kajoor xam ngeen ni kajoor xam-xam dafaa yàgg kajoor xam-xam dafaa yàgg lool lool lool ba ni ñu dellusee bawal kon ci gàttal loolu mooy duggug l'islam ci Sénégal bi muy dugg nag ci biir Sénégal la ëndaale daara loolu doon onzième siècle ba tey ñi ngi ci vingt et unième siècle di vingt trois di di troisième millionnaire fukki at ak fukki siècle ak benn ñii ni fukkeelu siècle ci la l'islam dugg Sénégal ñii nee nañ mi ngi jaare Mauritanie am na sax ñu wax ne mi ngi jaare Mali waaye li gën a wér dëgg dëgg dëgg te historiens yi indi ko mooy mi ngi jaare Mauritanie waaye ñoom bi ñu dañoo samp lool kon léegi jàppal ni kon daara dugg na ci Sénégal gi onzième siècle bi muy dugg nag daa àndaaleeg lislaam waaye doonu ni daara daa jiitu ca suba ga lislaam ñëw wala lislaam ñëw tey daara ñëw di ñoo ànd dafa mel ni ab naar bu yor gëléem giléem gi naar bi ñoo ànd saa ne nee sàngam la giléem gi egsi jàppal ni heure sàngam la naar bi egsi beneen bi ci des mooy daaray démb ak daaray tey al kutaabul amsi wal wal yawm kutaabul amsi wal yawmi wala madrasatul quraaniya lil amsi wal yawm daaray démb ak daaray ñun ñëpp xam nañ ni démb daara yi daw nekk ci taax daara baaxuwul woon nekk ci taax ci ab àll daan nekk te àll ba mu daan nekk bu bari kër ba bari kër ñetti kër dafay nekk ci ñetti kër yi dañuy sore benn bu ne ak morom ja dana man 5 kilomètres kon daara ba ko mag ñi sosee dañ daan fàkk àll bu kenn nekkul ñu dem nekk fa ak seeni dongo di bay di liggéey bay na la amal wa taalim dañ daan liggéey di bay amuñu woon fu dongo yi daan dem di yalwaani ñu fa daan nekk daan jàng juróom-ñeenti weer daan bay ñetti weer muy fukki weer ak ñaar neuf ans la ñuy jàng noppalu trois mois trois mois yooyu nag dañ ciy bay la ñu bay nag la ñuy fexe ba li ñuy wax almahsulu ziraa yi mooy bu ñu demee ba góob la ñu war a am ndax dugub la ndax gerte ndax lu mën a doon bu ñu noppee nag denc ko amul jaay amul def dara di ca dunde ak anam guñ mën a lekk xale bi itam ñu fexe ba environnement bi muy dund du gis dara lu koy yëngal jàng liggéey jàng liggéey nga xamante ne xale bu fa génnee fokk mu baax foofu nag benn problème am mi ngi foon mooy mën na am njàng ba baax mën na am njàng ma du baax ndax li tax mooy saa boo jàngee juróom-ñeenti weer lu ñetti weer te ngay doon kuy door a tàmbali mën naa am nga fëtt ni ko suñ mbokk saam saam yi wax te loolu amul woon kii day to kii day fëttaleeg kii day topp ak kii day nangam bu juróom-ñeenti weer yi jeexee dañuy wéer àlliwa yi ñoom ñëpp ñu jëm ci nawet bi lu ko mooy añ dana jot duñ añ reer dana jot duñ reer ndax xale yi amuñu fu ñu yelwaane te sëriñu daara ba tam daa yor ay soxnaam te fii amuñu fenn fu ñu yelwaane ndax li tax amuñu fenn fu ñu wala yelwaane mooy àll bi li muy yaatu yaatu yaatu ñetti kër a fi nekk kër ga borom euh, daara ja tudde ko daaru salaam wala daarul xuddus wala daarul man naan nu ko mën a tudde rek ngir taasu ci barkeb suñu borom ngir bëgg kër ga dox daara ja dox amuñu booba fenn fu ñu yelwaane xale yi li ñuy dunde la ñuy li ñuy bay la ñuy dunde sëriñu daara bi ci lay dunde kon daaray démb foofa la nekkoon mën naa am xale ba jànge fa njàng ma baax mën na am sens bu fekkee ni xel mi macha allah tayit ngeen may ma foofu benn en parenthèse nit ñi léeg-léeg ngay gis kuy ja kuy samp daara naan xale bi bu fi nekkee ñeenti at dana mokkal alxuraan loolu njuumte la mokkal alxuraan nekkul ci ay ñeenti at ak ñetti loolu yàllaa koy dogal ci nit loolu mat di tey la franchement lu ma di télé léeg-léeg ma gis ko ay publicité ay nit ñuy jox seeni daara naan xale bi bu fa nekkee ñeenti at dana mokkal alxuraan fukki at mën nga ko nekk ci daara te du mokkal alxuraan mokkal alxuraan du du du lu ñu tax diit lu yàlla def ci nit ki la am na ñu yàlla dogalut ci ñoom ñu war a mokkal alxuraan am na ñoo nga xamante ne ñaari at mën nañ cee mokkal alxuraan ba dalay jaaxal yow mi nga xamante ne yow yaa koy jàngal kon li gën rek mooy moom daal ñu ngi jàngale alxuraan diggante nangam ak nangam soxla nañ xale bu am nangami at nekk ak moom la yàlla dogal la mu dogal ci moom mais boo fekkee yaa ngi tax dit at yi naan nangam ak nangam commercial di daal dugg wàllum commerce di daal dugg te wóoru la xale bi mën naa faatu ji xale bi mën naa feebar bi yow yow mi ko doon jàngal mën ngaa dem ba ci ak a tooga ba ci ak nga jóge foofu lu ci ne mën na nekk di ay araqil yoo mooy na ko daan defee indil ma sa doom lu ma ci te yàlla dogal ko ma defal la ko ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci àll bi dawuñu daawuñu garantil kenn ne la fii kat bu fi nekkee ñetti at wala ñeenti at bu baree bu bari juróom-benn at dana mokkal alxuraan déedéet ñoom kay danañ la ko yaral ba bu xale bi dellusee da nga xam ne yaru na mais problème bi nag mooy ndax dana mokkal ak du mokkal foofu la problème bi nekk ndax jàng juróom-ñeenti weer noppalu ñetti weer at mee nga jàngat juróom-ñeenti weer noppalu ñetti weer da nga naan kii kañ la fii kañ lay mokkal kañ lay wàcc ndax njàng mi day taxaw du du njàng muy continuer lay sa yakuna hunaka al taalimul istimraar yi day taxaw daanaka day taxaw bu jàngee lii taxaw mel na école yi man mii di jàngale ci école yi xam naa ko école da jàngale ab téere ba mu xaaj ñu jàng école xam nañ école tëj téere boobu pare nga ci la nga koy jàngee boo amul niveau foo koy nga jàngaat ba école ba xaaj école tëjaat téere boobu pare nga ci duñ jàng benn téere bu yegg loolu nag lu ca nit mën a jóge am niveau fu muy amee niveau te téere boobee bu la waxee dara la jàng naa ko fekk ne da caa jàng rek ay quelques pages la ca jàng école tëj mu pare ca booba jëlaat beneen école tëj mu pare ca booba jëlaat beneen te benn téere du yàgg muy téere yëpp nag ya ñuy jàng fiq ak ya ñuy jàng tawhiid ak ya ñuy jàng naxoo ak ya ñuy sarfoog yëpp noonu la mel nga xam ne école ku ci indiwaale bu baax nga xam ne ki lay jàngal sax tem nga ne ko yow mii xamoo dara boo fa indiwul niveau da nga fa génnewaat da nga naan man sama lépp dama man damaa tardé kon nañu xam ni démb daaray démb noonu la daan jàngale léegi nag booba nawet par rapport ak léegi boobu nawet na ma yàlla baal dafa mel ni yàlla da leen a faraloon nawet bi da daan dox lool ba kenn ku ci ne da am dugub ju bare bare bari gerte gu bare bari soxna ya wut seen ñebbe wala ñu wut seen bisaab wut seen rënd ni ko suñ bokk salam salam si waxe benn problème duñ ko am ñu mën a dundaat yeneen ñetti weer wala yeneen juróom-ñeenti weer yoo xamante ni dañuy dimbaliku dañuy dimbaliku mais ñoom ñooñu tam di sëriñu daara itam seen problème mooy dawuñu laaj parent bi ci jox dara ci loolu musta xew maanaam sëriñu daara bu daan laaj bàyyi xale bi jox ma dara mus taxew musta xew loolu musta xew bi mu xewee yàggut ba ci daara jii ma génne di daara sëñ Abdourahim da rahmatullahi alayhi mus cee xaw lim dajale woon ci ay nit nga xam ne man dara ump ma ci ca génération bi ma tolloon waxuma ña ma jiitu woon ëppoon na junniy nit ba noppi di leen añal te lim daan def li gën a doy mooy bu demee ba nga xamante ne nawet dugg na mu woo sama baay wut ab liste jox leen ñëpp mu dugal leen mu dugal leen néegub góor maanaam moom ni meloon amatul ci àddina ba ci mën mi ba ci keneen a keneen ak keneen maanaam ñi mus a dugal néegu góor ku ko ci tudd woon doom si ñëpp dooy ëpp ay turandoo ci àddina te da ko daan def ngir yàlla lu doy waar boo leen ngay lekk lekkam di naanu naanam di sangu am am ndoxam lu nekk di taal courant mu di la jàngal ak njabootam di la jàngal ki ki indi xale bi mën naa am bis bi mu ko fi indee la la fi mujj amul benn événement buy xew sëñ bi woo tey dañuy lii dañuy laa far kër ga sax amul woon événement bi mu fi amee événement yàggut muy gàmb gi gàmb gi dong la ñu am ci événement la ca dolleeku mooy bis bi ñuy defal suñ mët ak li ci dolleeku bis bi ñuy defal suñu ab dem te yooyu yëpp daanaka ginnaawam la waaye la fa doonoon farata mooy jàng rek amul événement amul yëngu-yëngu ndax bu amee événement rek day mel ne da ngay pour ñu gis ndax buñ gisee ñu joxe te kon bu boobaa yàlla tut Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV